commerçant yi ACS di association commerçant secteur bi féete Touba ñoo entamé woon benn grève boo xam ne moo war a dem 72 heures. lii cause bi dañoo am problème ak douane polémique yi bari na trop mais euh, commerçant ku xam commerce xam na ku ne amul temps amul jot ci lenn fi mu ne nii fii may waxee yow nii am na conteneur yoo xam ne depuis un mois ñi ngi ci port bi seen borom mënuñu cee jot. loolu yaakaar naa bu dul cause problème xam nga luy problème beneen bi ci tolleeku it en général secteur bi ñu def nga xam ne kuy tàmbali ci commerce si ngay tàmbalee conteneur yi ñun indi fii ci réew mi di ko jëlee Chine fu ne conteneur après ñu doon fay entre 4 millions ba 5 millions wax nag base yi teg bu wàccee conteneur dana ba ci 15 loolu nag ñun dañoo xool-xool xamuñu fuñ ci war a mën a jaar xamuñu fenn fuñ ci war a mën a jaar parce que xam nga ko daan fay presque 5 millions ñi bëgg laa tegal quinze millions loolu raisonnable lu daal lii nag ñun gënalu gënalu kenn parce que xam nga fii koo fi gis mu taxaw daa tëju magasin ñëw taxaw ñi ngi ñaan nag parce que réew mi ñoo ko bokk lii arrangé wu douane arrangé wu ñun ñi arrangé wu état ku ñu jàppee xale da ngay juum parce que xale résultat bi ñu def démb ba léegi ku toog naa ne xale la waxaloo xam man nii di waxee yow tey bi ma xëyee jaar naa ci ñaari banque banque bi ma demee bi ma duggee ci deuxième banque chef d'agence banque bi moo njëkk jóg gàttanduma ma na tey mën na ko noo ne ma ba léegi benn banque yi banque yi loolu nag kon ku ku mën a wax ni lii du dara yaakaar naa bu réew mi mënoon wax réew mi moom dana wax ni lii dara la. garab bi moom commerçant yi ñëpp la ak kudut commerçant tamit ci nga bokk waaw ndax li ñu wax rek li waral mbir mi sunu diggante la ak douane loo xam ne maanaam génn nañ ko nar koo teg te saa suñ ko tegee maanaam dana ëpp 100 pour cent liñ daa fay ci conteneur. loolu nag yaakaar naa buñ koy xeex bam jaral ñu ñu tëj suñuy place kon loolu xam nañ ni jaraw bi ñi ngi koy def waaye ñëpp lañ koy defal ndax maanaam li ñuy bañ ñu teg ko ci lu ëpp pour cent maanaam liir bi doo ko judd tey sax ci la bokk ndax maanaam consommateur bi commerçant bi bu andi woon bagage am bu demoon ba mënta ñàkk mënta ñàkk lii jàll mu andi bagage am ñu teg ci maanaam daan fay million millions 500 ñu yóbbu ko ba 10 millions. maanaam kon dana xool maanaam 5 millions 500 yam teg yam teg ca yam teg ca bagage ya faaw dana ko fa plus doo ko séddale ay bagage am jaay te kon maanaam da gis loo xam ne dañ ko daa jaayee fukk dana jar fukk ak juróom wala mu jar ñaar fukk kon loolu maanaam Sénégal gépp ko bokk ñetti fan yi dana mat bu fekkee li ñuy wax maanaam dégluwuñ ñu ci maanaam danañ ko enseigné waat beneen yoon te loolu xam nañ ni day rey économie économique réew mi loolu président booy moom xam ko maanaam mag bu nekkee ci kër bu fekkee daa gis ay gone nekk fa bu fekkee dañuy xuloo ko xeex du mu bàyyi noonu. tey nag bu leen gisee ñu taxaw fii lenn rek moo ko waral muy euh, grève boobu nga xam ne commerçant yi Sénégal yëpp ñoo manqué woon di ko def muy 72 heures ñu tàmbale woon ko alterné talaata ñu fas yéene ko wéyal tamit ba suba jàmm ñun nag ñu ñi nekk fii ci Touba marché Ocass ñu nit ñi ngi ci combat bi ndax it bi ñu xëyee démb ba léegi. ñi ngi si tëj nañ suñuy place dafa nekk loo xam ne sur njariñ la ñun ñëpp te képp ku ñëw si wet duñ forcé kenn ndaxte kenn moomul place kenn ba ñëw na ko da nga tëj far la force loolu bëgg naa ñëpp tamit bàyyi ko xel bu baax li ñuy def daal mooy dana dox ak suñu tànk ñëw ba ci place waxtaan ak yow xamal ne la dafa am problème ba am ñu ne ban problème moo am duwaan kat da ne conteneur yi nga xam daana ko fayee exemple 4 millions 500 léegi mi ngi bëgg yóbbu ba 12 millions te ñooy loolu bu ko defee dana metti si kan lay metti mooy si askan wi kon ñi nga xam ne ñooy importé xeex bi ñuy xeex xeexuñu ko ngir ñoom dañ ko xeex ngir lan ngir askan wi ndax tey jii kat nit bu demee jëndi bagage am dikkee dana xool lu teg si ñaari junne ba jaay ko te subaa loolu kon dana metti kon si ñan lay metti mooy si askan wi moo taxit kon ñi ngi lancé message président Macky Sall moom mi nga xam ne maanaam moo fi jiite ful koo xam ne yaa ngi fii biir Sénégal kon moom it na wax ak ñi nga xam ne la war a waxal muy waa douane directeur bi bu ko defee ñoom kat li nu jël ñu arrière ci ginnaaw waaw bu ko defee nag ñun. xeex moom dañ koy wéyal ba suba ak jàmm ñett fan moom day mat sëkk incha allah 72 heures kon ñoo ngi bàyyi loo xel bi di woo sunu ministère commerce nga xam moom moo mooy moo moo yilif mboolem lu xeet a jënd jënd liñ teg askan wi metti na te ñun neexuñu ndax askan wi ci lañ bokk kon saa suñu xëyee bañ a banque suñu loxo jaay bañ jënd loolu metti na ci askan wi nga xam ne ñoo jógee fu sori wala ñoo xam ne amuñu information yi ñëw ba ci marché bi moo ko waral kon ñoo ngi woo sunu ki nga ne mooy ministère commerce mu gaaw addu xam ne li mu bëgg a teg réew mi ak li mu bëgg a teg yi at luñ ko moo tax ñu banque suñu loxo ndax bu la wóor na luñ attan la kenn kenn kenn du ci jot ndax ak commerçant saa soo ko tegalum attan mu ànd yow liggéey waaye li mu ñu bëgg a teg loolu sans lu nekk la moo tax ñu taxaw ngir xeexal ko askan wi ndax fekkante ne ab commerçant moom du jaay perte saa su jëndee téeméer ñaar téeméer juróom fukk lay jaayee waaye xam na ne lii ñuy def buñ ko mu jàll booba askan wi ci boppam ñooy sonn ndax képp ku daa jëndee kilo ceeb téeméer da ko jëndee téeméer ak juróom fukk te loola boobaa ñun askan wi ci ci lañ bokk ndax li jaay mënu su koo lekk ndax ñun ay wëñ la ñuy jaay wala ñu jaay ay tiise li ñuy jaay mooy ceeb ak sukkar ak diwlin te loolu ñun ñi koy jaay mooy détaillant yi nga xam ne ñun na ñoom seen yoon niw ci te ñoom xóor na leen ni te bu wàcc ñoom lay dal kon nag bu dalee ci ñoom it ñu ndax ñun ñoo leen di fekk foofu di ko jënd kon daanaka ñun bu dee wax ne xeex bi du xeexu interpersonnel la suñu bopp la xeexal déedéet juum nañ ñoom askan wi la xeexal te buñ ñu ba ci kanam ba lii ñuy xeex jëlut boobaa ni nga xam ne ñoom ci boppam ñoom lañ doon xeexal kon nag na ko ñëpp bàyyi xel na ñëpp jàpp ci 72 heures mat ñu am liñ bëgg ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu